ginnaaw bi ñu sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu wax alhamdulilahi rabbil alamin waaw question bi ma laaj nag moom question bu neex la Bijou Ngoné man ak moom ñoo bokk benn ndey waaw ma yaraale ko rek en quelque sorte ndax xam naa ni moom samay ay rakk yu baax lañu seen waajur bu góor bii nga xam ne moom moo génn àdduna di El Hadji Moussa man bi may yar boobu xale yi juddooguñu donc ça fait presque plus de quarante ans ma nekk ak moom Bijou daal loolu laa mën a wax ci moom moom mooy sama sama rakk la ñu bokk benn ndey Adja yi ne liggéey di suñu yaay mu nekk sama xaritam hmm. waaw. magam. laa malgré ni am naa tamit kenn ku ma mag ku góor ak kenn ku ma mag ku jigéen à ñooñu daal man maa ci topp man maa mag hmm. ñooñu ñi ngi bitim réew donc man maa nekk fi instant yi nekk mag bi ba man maa taxawu góor gi alhamdulilah rabbil alamin ba jébbal ko suñu borom. d'accord. nit ku baax nit ku gore nit ku gëmoon yàlla a ah, man de sant naa yàlla ndax doom laa te taxawu naa ko ndax loolu rek lañu am ci waajur yi bés ñëw ñu wuy ji suñu borom nga taxawu leen kon alhamdulilah rabbil alamin alaaji Moussa Diegane de man de xam naa ni moom mën naa ni ñàkk nañu bàyyi ndax bàyyi musuñu bàyyi ñu xiif musuñu bàyyi ñu mar musuñu bàyyi ñu rafle li ñuy wax daal mooy yàlla na ko yàlla xaare àjjanay fi daws nit ku baaxoon àdduna nag mu ngi noonu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ci moom lañ jóge ci moom lañuy dellu ñu ñaan rek mu yéex te mu fekk ñuy bés bu ñuy jël ci lu baax ginnaaw bi nga xamante ni nekk na animatrice bu siiw ci Sénégal lool lan nga ñu mën a wax comme témoignage <laughs> Bijou Ngoné mm-hmm. ah Bijou Ngoné de xanaa je suis vraiment mm-hmm. ndax yàlla dafa def ni peut-être bi muy gën a nekk tout tànk man man man dugg naa ci showbiz bu yàgg ndax man ñoom ku xam rek Pape Thioune Dolso ñu may wax tamit ndax à de des séries muy brigade des mœurs bi ma nekkee ci showbiz bi yàgg na parce que je le père fondateur de l'AFSUD mooy l'amicale des femmes du Super Jamono ma créé ko fii ci kër gi en 1989 bokk ko waa Sénégal yëpp bi ma koy créé boobu Bijou mi ngi nekk ci tout tànk bu ndaw et je savais que ni un jour dina nekk ci lii ndax dama daan nekk ci ay réunion yoo xam ne ak sama gars yi bu ñu uuf sama kaw am na benn anecdote boo xam ne du ko fàtte mu xam naa moom loolu sax du ko xalaat mi ngi toog ñi ngi toog mu sex baaraam bi doon parce que daan màcc baaraam ñu nekk ci rek. indil jàppal Omar Pène yóbbul Omar Pène mu toog ba si ak gëstu rek ne kan mooy Omar Pène <laughs> te boobu bi est que am na ñaari at wala yooyu ñett je te ma xam ne kii bis dina ñëw dina nekk ci showbiz bi joma ko ci dugal fit fulaak fayda loolu daal xam naa ni Bijou am na ko ba tax na confrontation bi muy def nii ak yeneen émission ak affaire yi mu nekk nii yëpp yàlla di ko ci defal tawfeex alors ci am jafe-jafe ku ne am nga sa destin moom son destin c'est ça xam nga nit tey mën nga ñëw am benn yoon jëkkër ñaari yoon jëkkër ñetti yoon jëkkër divorce te teewul nga nekk ku bon nga am benn jëkkër rek sa àdduna te fekk yow lu ngay def nii boo moytul wuu yàlla ji mi ngi lay xaar c'est vrai nag que ni muñ bi moom dafa war àdduna moom dañu war di muñ. moo tax ma ne la je suis un peu dafay metti tuuti man may may juger muy jour di keneen ak keneen man bëgguma di juger nit di wax kii warul woon def lii ou non parce que man bëgguma ku ma juger man dama bëggoon man sama àdduna ma am sama réserve te réserve boobu su ma koy am c'est parce que dama war a am réserve par rapport aux autres dinañu waxtaan nag ndax wax la wax wax tànn léeg-léeg nañu seq loo xam ne bu ñu waxee ñu tànn lu baax li mais nag naa la wax benn affaire ay comme décision ak yooyu non dama lay bàyyi nga jëlal ko sa bopp. parce que fii ku nekk yaa xam ni ngay tojee sa bopp jinax. merci beaucoup Pape yu mujj yi. kàddu xanaa di waaw da am benn kii waa ñëw àcc. gis nga déjà benn benn kii mi ngi nii boo xam ni man nag ma leen di wax ne moom gaay yi gars yi nag moom gars doy waar merci bi indi lañ ma colonel boo xam ni un colonel pervers ma nekk ci bureau sax aw ma ko chaque fois ñu boole ma xale yu jigéen ñi tasal ma takk bi tam aussi c'est un truc boo xam ne yéen xam ngeen nu mu demee on man ñu ne ñu ne yéen a bokk kër gi ñun nous sommes les acteurs mais vous vous êtes les hommes de l'ombre comme on vous appelle ñun ñu liggéey sans yéen yéen mënu leen liggéey sans ñun xam nga ni gars yi dañuy bind rek jox la man nag xam nga comme benn nit laa boo xam ni moom aayuma damay jàng rek damay ñëw gars yi ne ma defal benn affaire ma def ko ne ma léegi da ngay takk xale bi jàppale indi bi mais xale bi moom a nax parce que bu mu ñëwee ci bijoutier bi man boo ko laajee bijouterie bi boo ko laajee dama ne ko madame ou mademoiselle mais ma wax de pour won xale yi itam dañu war a tey de gars ah moom moom wax loolu mais naya mooy ci biir film bi da ngeen di gis ni carrément après papa xamal na ma ne sëyam tasul mais teewul man takk naa ko loolu yëpp scénariste yi ñooy bind ñoo xam liñ ci jublu pour wane ne adduna bi aussi dañ toll fenn foo xam ni axiru zaman dafa doy waar ah. dafa doy waar léegi il ñu rectifier wu waaw takk naa jabaru jàmbur mais cela ne pas dégg gis na fi ma toog di wax international la kenn faale wu ma ay gën mais ma toogee nii kenn waaw. ginnaaw moom mu xanaa rek jéem a fexe ba def li mu daan def ndax góor gi comme li ma la wax man moo ma yar ça fait plus de quarante ans mu nekkoon Sokopao ñu koy wax après SDV Veljo mu nekkoon ci chef transit bi biñ demee ba nga xam ne léegi traité na taalibe Cheikh la mu dem Tiwaawan jënd fa kër dem toog ci wetu foofu léegi da daan ñëw ci kër gi fii. bu feet amee tabaski korite yooyu mu ñëw ñëw seeti soxnaam ak yooyu mooy suñu waajur bu jigéen après demaat ba bi muy mujjee dem nii ni nii suñu waajur bu jigéen sax ndeysaan moom moo gënoon tawat moo feebar. yow nga euh, xam nga àdduna dafa doy waar ñëpp yamuñu ku nekk ak sa jikko ah comme li ma la rek nit ku baax la mais nit ku ne am nga say hauts et ak say bas am say vérité ak say défaut. télé nag dafa doy waar wala média yi wala muy internet beeg lépp dafa doy waar te du ñu ne am nga droit ci lépp parce que nit ku ne am nga réserve dëgg la léeg-léeg ma toog man maa ni ne artiste la maa ngi ci télé beeg yéeg yëpp mais je me permets pas cette di dugg ci yenn détails yi di di seetaan yenn affaires yi parce que du ma bëgg écœuré wu parce que nit ak lu mu mënti doon rek mbokk dafa fort dafa doy waar boo déggee ñuy wax sa mbokk benn affaire bu metti noo def mu metti la mm-hmm. waaye nag c'est elle qui a opté ça et je sais li ma bëgg rek moom mooy moo xam ne tamit aussi chaque fois il faut nga jéem a xool li nga xam ne day yoon nga koy def ñun ñëpp nag on est euh, on est appelé à faire des erreurs mais qu'on les rectifie ba pare di ko maytu tamit des fois mais je sais ni nit moom am na ci yoo xam boo ci nekkee noo def ñu clash la waaw léeg-léeg nga wax dëgg ñu clash la léeg-léeg nga wax lu bon ñu clash la mais na doon leneen loo xam ne rek fexeel ba. Euh, xam ni da nit dafa am droit de réserve parce que daal liberté s'arrête juste là où commence celle de l'autre waaw léegi nit moom da nga war a xam loolu muy bijou di man di keneen ak keneen loo man daal j'aimerais dans la vie qu'on me traite comme par exemple yow mii ni nga bëggee ñu lay traiter traitement comme tu voudrais récole te traite loolu daal laa bëgg. est-ce que man je crois que ni des fois xam nga dafa am yenn affaire yoo xam ne moo koy laaj. mais du nit ku ñàkk kersa nit ku yarul la c'est pas parce que dañu bokk moo tax ma koy wax de du nit ku réew de lu wóor laa lay wax nii nit ku baax la mën a kaf mën a ree c'est juste que ni milieu bi mu nekk nag il faut nga am noo demee xam naa ku nekk da ngay ànd ak sa griffe rek mm. ah sa empreinte te moom empreinte am lool la elle est elle est à poser des questions yoo xam ne des fois bu doon man mën naa bañ a poser mais moom da koy poser parce que moom mën na ko mën na ko parce a topp que ni Bijou dafay sëy waaw mais xam nga loolu c'est un boo xam ni man mii di wax ak yéen ñi rek est-ce que man a ma ñett yoon jabar ah. <laughs> mais te te man du ma ne ah mënuma juger sama bopp de. Ah, non non bul wax loolu. Ah, man war na ma na am bu ma duggee sa biir kër mën naa fekk lu mel noonu. donc problème bi du problème de famille problème mu àdduna la rek c'est destin. man je crois que chacun a son destin dans cette vie là ku ne am nga sa destin moom son destin c'est ça xam nga nit tey mën nga ñëw am benn yoon jëkkër ñaari yoon jëkkër ñetti yoon jëkkër divorce te teewul nga nekk ku bon de nga am benn jëkkër rek sa àdduna te fekk yow lu ngay def nii boo moytul wuu yàlla ji mi ngi lay xaar c'est vrai nag que ni muñ bi moom dafa war àdduna moom dañu war di muñ moo tax ma ne la euh, je suis un peu dafay metti tuuti man may may juger muy bijou di keneen ak keneen man bëgguma di juger nit di wax kii warul woon def lii ou non parce que man bëgguma ku ma juger man dama bëggoon man sama àdduna ma am sama réserve te réserve